noonu lañ gis ne ndeysaan léeg-léeg nga de gis ñoo xam ne ay mbootaay la ñuy doon dañuy togg ñam yu baax ndeysaan bu njëkkaan ba dañu daan taxaw ci Westfield Junction ba di ko séddale ñii dañ daan ñëw ci marché Banjul ya ñii ci marché Serekunda ñii ci marché Brikama yi jamono ji ñu toll nii nag ndeysaan mu am loo xam ne moo tasaare àddina damay dafa tasaare àddina muy jàngoro bu ñoo wax eh, coronavirus su ma na lay waaw corona bàyyi buuf yéen ne ko corona bàyyi bàyyi waaw war naa def bàyyi bàyyi gis nañ ne euh, jamono ji loolu moom dina xaw a jafe euh, jàngoro ji nag kenn xamul ay mbiram te nag am na ñoo xam ne euh, sama xale yi gars yi sama xale yi laa àndal de ñoom weeri koor gi daf leen xawal na ko waaye maa ngi jiw daal ko yeeree ñu ngeen nelaw xaale ñoom ne ñaari Aïcha yi la anti Ada yéen moom xoolal ma weeru koor lu gis naa ne waaye yow dañ si boppam ngoon bala naan ñi nga xam ne ñoom ñooy def loolu ñi nga xam ne ñoo daan def loolu parce que bàyyi nañ xel même sax yenn woykati gambien yi dañ daan def loolu dem Westfield defar ay tooga dem euh, jonction yu baax buñ faati di def ay ganaar yu baax def seen tante yu baax dem ci marché bi def seen tante yu baax di joxe ndox di joxe lekka xam nga ak iftaar oh. parce que yonent bi dafa sallallahu alayhi wa sallam dafa wax maanaam benn tàndarma nga dogalee ko nit sax mu ne yàlla uyul na la mu ni aljana ren foog ngeen dina am su waree am naka la war a amee ci seen xalaat. loolu loolu nekk na lu doy waar euh, soppe na bi. parce que ah. soo ko seetee lu bëri dañ ko doon def waaye euh, euh, coronavirus bi. dina mhm. tax ñu bëri balaa nga koy def sax dinañ si xalaataat. Mhm. parce que loolu daf daan andi public gathering. Mhm. ba pare duñ mën a maintain social distance bi. lu semee ne Yacine Kitchen. ñoom tamit yaagal nañ di ko def te nekk na loo xamante ne tamit sa wërsëg sa doo

Ja, ya, kan dan kom nog wel herk. Kom eigenlijk dan nog wel herk. Um, iftaar. Mhm. moo nekk loo xam ne um, nit yi dañ ko dee joxe all the time. Mhm. time bi weeri koor mhm. nga gis koo xam ne sama dem liggéey ba ah uh, buntu la time bi. waaw overtime ak yooyu waaw overtime nga gis uh, benn foundation bu set dara rek. di joxe yi fi dox. Uh, pour am fa nga ñëw rek jël dem. ñu gis ne loolu yëpp tamit si weeri koor comme soo ko soo koy def sax. make sure ne nga paquete ko. nga make sure ne tamit nga wear that glove and all nga make sure tamit. ne like comme su nekkee yaa ngi ko def nit yoo see involve bu nekk da ñu bari bari noonu. Mhm. ñu maintain the social distance nga teg sa table bu rëy. kii mhm. taaw fi kii taaw fi ngeen di ko civilise bi mhm. ku ñëw euh, su nekkee dafa war a dog comme ndogu fekk na ko si yoon bi mu jël dem yoonam amul taxaw sax toog di lekk yow jëlal rek nga dem sa yoon man it maa ngi suggestion loolu laa foog ne loolu lañ ko war a def. yow noonu nga xalaat yaay yow ci sa xalaat yow naka nga foog ne noonu lañ ko <laughs> am nga xam nga mag lan waa bu gàtt bu xees bi tey danoo naan maam booy lan nga wax waaw comme ni ko waxee eh, man tamit eh, suma xalaat tuuti doon na loo xam ne loolu moo gën a rafet daan parce que ñu ne nañ sori wante mhm. eh, bu kenn jege wante pour ñu mun a saafaral jàngoro gi mu mun a delluwaat fu mu jógee si alum moo xam fan la jógee na fa mm-hmm. dellu mm-hmm. Euh, waaw loolu dina doon lu am solo mm-hmm. wante bi comme ni nga ko waxee ku ñëw rek jël dem loolu moo doon gën a rafet dan comme ñuy ñëw di teg xam nga nit ñi ñeneen comme lu dee paquet pour ñëw teg rek parce que dama dee gis ñeneen ne ñoo def bool ñi ñëpp ñoo toog lekk ak yooyu noonu so pour avoid loolu man li ma xalaat mooy comme mbuuru yi ñoo teg ni comme nga soos ko si mbuuru teg nga raab ko ku ñëw rek nga ikkatu jox ko mu dem loolu moo gën a rafet dan comme nga def si plat nga ne ñi lekkal leen soo leen paree dem lekkal leen soo leen paree dem waaye man dama yaakaar ne soo leen jëlee ngeen paquet paquet ko mm-hmm. moo gën a doon lu am solo donte du ñàkk am nañu koo def du ma ne donte du ñàkk am nañu koo def mm-hmm. nekkul ñëpp la seen loxoy jot seen gannaaw ñeneen ni dañoo oor suba ba ngoon duñ am ñu lekka mm-hmm. iftaar bi doon na loo xam ne lu am solo la si dundi doomi aadama waaw ah, xam nga man ah, li ngeen xalaat yëpp rafet na dëgg la waaw waaye tamit ah, ok tey yow su fekkee ne yaa ngi teg ndogu am na ñoo xam ne maanaam xiif dina tax ñu booloo donte sax ndogooguñ de maanaam jëlaguñ ko sax waaye xiif mun naa tax ñu booloo kon foofu foogu leen ne xëy na takkadeer gi lañ fa war a involve ñu mel ni ki xëy na army bi wala ñu mel ni ki euh, anti crime bi wala euh, anti crime xamoon naka lañ ko waa kay ñoom ñu indi leen pour ñu dimbale nit ñi ci su maanaam ci ci sorilante kenn kii su taxawee fii ñu mu jox woon mi ta jox woon mi ta ona sànga ñooñu buñ fa taxawee nit ñi dinañ leen mun a ragal pour mun a dem according to ni ñu ñoo jëlee rek dem ku jël ñu la demal ku jël ñu leen demal waaye bu ñu leen bàyyee rek kenn nekku fa benn police ne ko man ah, am ma. Ah, non non waaye du kii dafa soxor parce que bu fa taxatee euh, naka euh, police taxawee wala soldat taxaw ko wala ñu jox ko soldat rek seen bopp ñoom ñu distribué ko. la mm-hmm. leen ragal. xanaa loolu laa ko simple parce que fii fu mu nekk nii jot na pour ñu involve soldat yi. ci liggéey bii. Mhm. ndax ñu ñu bañ mu tasaara parce que tey bu ñu seetloo Sénégal am na ñeenti téeméeri nit li bi mu dalee ba tey ñeenti téeméeri nit te am na benn kilifa diine boo xam ne rey na ko fan yi passé nii foo rek bi si bu ñu ko seetloo kon mbokk yi man suma xalaat loolu la ñoom ñëpp seen xalaat rafet na boole ko ñun ñëpp suñu xalaat rafet na waaye jot na nag pour ñu boole